Birahim madame Touré euh, di nuyu xalifa général yi jiital ci sëñ Muntaxa euh, dal di nuyu këru ëttu diine yëpp maa ngi leen di nuyu ba ci waa jàngo bi di nuyu waa diaspora bi kon nag seen émission jataayu transport door nañ ko fii tey ci leeral TV bëgg rek lu leer ci transport moo tax ñu dalal fi ko ci mel ni LC Momadou Ndiaye ñu koy wax moo du Ndiaye mu nekk euh, syndicat jiite taxi yi nga xamante ne ñoo nekk Dakar euh, ñu ci ànd tamit tamitam Baye ma gàmmo ñang euh, moom mooy président seye dimbalante bu jàmmalaay ak sunu baay Mbay Touré nga xam ne moom mooy sunu magum ma nekk fële ca King Fahd bu ngeen déggee King Fahd nag mu nga ca côté Pointe des Salmadies mu nekk suñu consultant ci émission bi Euh, kon nag dañuy door émission bi doore ko ci alaaji Modou Ndiaye LC maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci seen émission jataayu transport ak Mbaye Badiane ci Leral TV euh, merci di wax asalaamaaleykum hmm, waa Sénégal asalaamaaleykum waa Leral TV ginnaaw bu ñu leen nuyoo di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa seqal plateau bi mel ni kii président Touré mi nga xam ne moo féete la point de Zalmadi di ko jaajëfal ci bëgg transport ak ni mu nekk yow fii ci plateau bi ngeen seq euh, émission bi mu nekk sa consultant euh, am nga sens am consultant bu xam transport wax dëgg yàlla yàlla leen yàlla gën a jubale di nuyu tamit euh, ma gàmmo mi nga xam ne mooy président bu jàmmalaay moom itam ko xam transport su su transport taxi di nga ko ci xam kon ñoom tam wax dëgg yàlla su ma fi dajeek samay waa kër ba pare nag ñu di ay kilifa day baax ñu fab nuyoo bi rek teg ko seen loxo di nuyu aussi euh, Taxi du Sénégal nga xam ne moo lié tout ce qui est quatorze yi Sénégal ma nekk seen cordinateur maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu tamit aussi cadre unitaire des syndicats de transport routier bi nga xam ne maay coordonnateur adjoint maa ngi leen di nuyu am nuyoo bi teg ko ci loxo Karamba Goudiaye bi nga xam ne mooy suñu cordinateur di nuyu aussi collectif de taxi de l'AIBD mm-hmm. Euh, en tant que membre di fab ñoo bi teg ko ci loxo président Modou Fall bi nga xam ne mooy coordonnateur bi di nuyu monde du Sénégal yëpp di la jaajëfal mbay merci. jërëjëf kon dañuy jox kàddu gi Baye Magamou Niang Baye Magamou asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mbaye Badiane maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu LG Modou Ndiaye di nuyu Baye Mbaye Touré di nuyu euh, seen di mënante jàmmalaay bi mooy jógee. di leen sant di leen gërëm di leen nuyoo bi di ko teg sama wasilo yi nga xam ni mooy sama bunt ci kër seex na Cheikh Sadbu muy Chérif Alwali Maane Ndiaye mu jàllale leen ma nuyoo bi ci bépp xalifa général dellu di nuyu tamit mouvement transport bi nga xam ni aussi may quatrième vice président bi di ci nuyu ñëpp di ko teg aussi ci loxo Modou Seck mu la ko jërëjëf kon Baye Mbaye Touré dañ lay wax asalaamaaleykum dalal ak jàmm ci Leral TV ci seen émission jotaayu transport ak Mbaye Badiane. waaw waaleykum salaam auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahu min kulli karimin akramana amahu an qaadaloo takkaram aslim loo kullaka han e mane wala simili sande rahmani sukkure bila kufran tufun sabo mahanirani allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim الفاتحة مصطفى الناس حق بالحق وعلى آل حق مقدار عشيمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام maa ngi doon fay nuyoo di fay sama naataango yi mu fi toogal di Ndiaye ma gàmmoñ ma leen di fay di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal waa rajo Birame Touré rek daam janga képp ku fi liggéey mm-hmm. yàlla def fi jàmm def fi tawfeex jubale xol yi dàqal ñu seytaane yàlla na siiw bu fu waaye togg rek ne leeral lépp lu ñu fi jàmban nag boo tax ñu fee toog yàlla na ko yàlla saafara barkeel xaar na kër jërëjëf kon nuyoo bi am na solo waaye dañuy wàññeeku rek ci LC LC Modou Ndiaye Modou Ndiaye nekk syndicaliste ba pare tey toogal fi transport waaye euh, dañu lay laaj benn laaj rek ci transport ndax transport saa su nekk rek sëfoor si dañuy jooy jooy bi di benn jooy metti metti bi ci la ñuy jëkkee ñaareel bi mooy transport irrégulier bi nga xamante ne saa su nekk rek ñi ngi koy jooy ca sunuy rongoñ mënul fexe fexe ba fer euh, mu nekk loo xam ne ni jaaxal na sénégalais yi euh, ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu transport euh, LC Modou Ndiaye ci loolu lañ bëgg a xuus ak yow ndax transport yàqu na métti na kenn solution la ñuy def ba transport jaar yoon ba yi ci xajam-xajam yi ci nekk yëpp mu deñ wala bu deñ tam mu wàññeeku. waaw merci mbay euh, xam naa laaj bi du jafe ndax laaj la boo xam ne ñëpp mën nañ ko tontu mais comme ci sama kaw la dal day baax ma tontu la ci lu yaatoo yaatu la euh, dañ toll ci jamono joo xam ne euh, jamonoy ànd la union fait la force ak secteur bu mën a doon bu tasaaroo amoo seen biir rek la ñu bëgg mën nañ ko bañ am te kenn ku nekk xam na ne secteur du transport kenn ëpp leen mbooloo ci réew mi ñu nekk nii kenn ku ne xam na ko mais division bi nga xam ne am na ci biir secteur bi moo tax lu bëree bari dina jafe syndicat yi faj ko. am na ci nag yu ñuy saafara mais yi ñu war a saafara te saafaraaguñu ko moo ëpp loolu nag suñ ko waxee dañuy wax ne ñu ci bëri pour le moment ni mbay. appelier wuñu ci benn syndicat lu ci bare bari amuñu carte syndicat bokkuñu ci syndicat bokkuñu ci regroupement sax euh, lu ci bëri li ko waral mooy syndicat yi am nañ ci responsabilité nañ ko nangu parce que syndicalisme lenn la da ngay fekki walla ñu fekki la loolu nag li koy maye mooy fokk ñu nekk ci terrain bi il faut syndicalistes yi nangoo wàcc ci terrain bi génn ci bureau yi génn ci garage yi dem seeti acteur yu transport yi ci milieu yi ñu nekk mais il faut tamit acteurs yu transport yi ñu nangoo affilié ci syndicat yi parce que syndicat du affaire du kenn nit syndicat dafay war de rassembler du dajale mais ñi ngay dajale tamit il faut que ñu fekk si la walla nga fekk leen ni ma ko waxee sànq. loolu mooy sunu cat mbay mais kenn ku nekk xam ne transport fi ñu toll ci Sénégal lu ko gën a riis amut su ma nee dafa dafa riis mooy ñëpp ñi ngi daw wursi ko lu ñëpp bëgg la te mooy loo xam ne kenn mënu ci mucc moom transport kenn mënul mucc transport même fi ñu nekk ñi li ñuy def transport la baagante saal bi boo demee ñëw yaa ngi transporter sa bopp moom àddina bi yëpp transport lay def ah. lu ci waay di def rek transport nga koy defee mais mooy transport yi nga xam ne dañuy yéeg ci ndaamar yi ñu tuddee transport en commun wala transport lourd wala transport lese yooyu mooy secteur professionnel bi nga xamante ni bii ñi ci nekk dañoo war a takkatoo nekk benn yàqu-yàqu gi ci ñàkk ànd googu la d'ailleurs boo xoolee anecdote bi ma lay nettali euh, décembre 2021 bi nga xamee ne cadre unitaire de syndicats de transport routier juddu na te 14 syndicats yi nekk ci Sénégal reconnus par l'État nekk benn benn semaine la ñu wër Sénégal benn semaine benn semaine bis bi ñu déparé di wër régions yi bis boobu bi mu dellusee la ñu dugg siwaat Ndakaaru te def nañu quatorze régions yi waaw loolu lu ñu ko mayoon ànd ba ñu fa jógee jàpp grève entre le premier le 2 décembre kenn ku nekk xam na ne grève boobu réussir na bi ñu taxawloo sëfoor yi taxaw nañu ba ñuy négocier ñu indil ñu dekk set président décret présidentiel ci saal bi ñu nekk nag juróomi ministère ya fa nekkoon président signé décret indi ko fa est-ce que loolu mës na fay am mais nag kenn ku nekk xam na ne syndicalisme bu ñu demee ba takkutoo noonu ah mais ñi nga xam ne ñooy autorités yi coono boobu ñu def ci ñetti fan yooyu duñ ko bëgg dajaat il faut que ñu jéem a dugg ci biir mbooloo moom jéem leen a déstabiliser ah malheureusement am nañu loolu ba tasaaroo am na mais nag ba léegi defarwaat du wees am nañ chance tamit yàlla dimbali ñu ba chauffeur yi nga xam ne ñoo nekk acteur yu nekk ci terrain bi confier Modou Ndiaye ci mission yooyu mission benn pour mu rassembler waat ñi nga xam ne mooy secteur généraux syndicat yi nga xam ne ñoo daje woon mission boobu mën lañ ko sant pour ma dajale waat ñu ngi ci góorgóorlu ngeen ñaan yàlla defal ci ndam. ok jërëjëf nga LC li mu wax. kon kon ndekete yoo euh, maanaam sunub ñàkk ànd. daf ñu andil lu baree bari ci yàqute ci biir transport bàyyi ma gàmm kon foofu naka la ñuy def ba tëggaat ko ba ba mu gën baax ndax fi mu toll nii kat boo déggee ni mu waxee nii kat kon ñàkk ànd toujours rek am na lu muy indi ca li muy indi jigul sëfoor waaw mais xam nga diggante bay kéwal bay dafa nangu ku ko jiite hmm. kéwal nag bu génnee ci àll foo ko fekk rey mais bëy bu loo ko rey ndax yëfi jàmbur la transport bi ñu dañ ko moom ba pare la majeure partie gëmuñu ko xam nga tax gëmuñu ko hmm. boo rombee ñuy rey sa moroom nga continuer dem syndicaliste bii hmm. du Modou Ndiaye NG hmm. aussi ñoom ci liggéey bi ñu doon liggéey ci euh, cadre unitaire dëgëroon na départ mais dafa dem ba mu yàgg nag mu mel ne état dafa dugg seen biir séparer leen kon ne ku ne daw wuti fa nga jëm li gën a may transport irrégulier yi ngay wax ni dugg fii lu mel noonu ci la bokk. baal ma état état naka la def ba ñëw séparer leen foofu. état mën na séparer ku ne état ni muy séparer nit mooy day ñëw wut mbër samp mel ni mbër ànd ak moom kooka bu nooy bopp day bàyyi ñu àndal dem te bu fekkee kooka yor na mbooloo day yàq diggante mais ñun dañoo war a toog suñu bopp di concerté wu di toog di waxtaan. kenn ku ne génne sa xalaat si nga dajale transport. Hmm. du jël mbooloo yëpp dajale. da ngay seet ñi nga xamante ni ñooy tête de file yi. nga woo leen kenn ku ne nga ñëw teg ko mu toog. Hmm. boo ko jëlee teg ko mu toog ngeen toog yéen ñëpp ngeen càmbar lépp jël lépp dajale dossier yëpp jébbal ko syndicaliste bi moom it mu dem yóbbu ko parce que syndicaliste loolu mooy rôle man ni daanaka syndicaliste man la waru ngay kaas parce que yoroo kartam hmm. parce que syndicaliste tamit lay dundee. mais bu fekkente ni yow aussi tamit li ma li nga wax Modou Ndiaye il faut nit ngay boo ko jiitee ngay soxla daal di ko seeti. Mm-hmm. parce que nit ñi boo toogee rek ñoom ñu toog waaye boo dee dox di seet nit ñi nit dañuy ànd ak yow jàppale la ci liggéey bi. Mm-hmm. parce que liggéey bi du liggéey kenn nit. Mm-hmm. boo gisee fu ne am pàcc. pàcc yëpp mën nañoo dajaloo te du yàgg dara lépp mën nañoo dajaloo. parce que kii bu nee ci pàcc bi bu nee ci quatorze ans yi bii nee ci quatorze ans yi mën nañoo dem ba yàlla boole leen ñoom ñëpp ñu nekk benn te benn boobu bu ko kenn ku nekk woote sa bopp ci njiit yi bu soobee yàlla léegi mën naa nekk léegi léegi ndax te njiit yàlla rek moo koy tànn njiit du xam-xam njiit du ëpp xam-xam yàlla mooy tànn doomu adama bii bi muy juddoo ni kii yàgg-yàgg mooy jiite ñoom ñii ñëpp ku jeexali da ngay dem keneen ñëw remplacer la xam nga wax naa la lu bëri ci jàmmalaay nee naa la jàmmalaay man su ma toogeeyoon fii sax woote téléphone yi def leen nangam. kenn du ko dindi. Mhm. kon mbooloo mu takk moo mu nekk ci jàmmalaay laa bëgg mu wër ci transport ba ñun ñëpp ñu nekk benn parce que xeex bi xeexu ñëpp la. Mhm. xeexu ñëpp la. Mhm. ku nekk nag mën ngaa téye sa mbooloo ngeen dem ba xeex ba gañe kenn ku ne àndaat ak sa mbooloo mais loolu du dara. parce que xeex sot la. xeex ak état sot la laaj. ok kon baax na sama consultant sama consultant di Baye Mbaye Touré Baye Mbaye Touré euh, dégg nga li LC Modou wax dégg nga li Baye Magamou ñu wax euh, lan nga ci jokk ci loolu. waaw alhamdulilah. Ah, nga tuuti mhm. mm, fi ñu waxee foofu la. Mhm. Mor njaay mii. Mhm. lu lu transport transport ko gënal. te fu mu romb chauffeur mu am problème mu taxaw. xam naa ci te boo ko woon léegi fa nag maa ngi place sàngam nangam mu ñëw fekk la fa. parce que moom xamal na ma ne transport nit ñi xam na kon transport lay dundal ci lay dund moom lay dundal. kon loolu alhamdulilah rabbil nañ ko ñun ñëpp waxoon naa la ne la. Hmm. ba mu ne ko mun njaay nekk fi naa la. Hmm. lawoon woon na li mu waxoon nii am na fi. Hmm. ba mu fi amee. tubaarkàlla ñëpp xam ne transport du caaxaan. buñ ca yeggaati nag mooy gën a piir moom njaay xam ne li may wax syndicat la mu ngi jokkoog nit ñi xam na Sénégal yi yëpp a sonn yëpp a maar transport transport ku lu transport la war mu jeex ñun transport la ñuy joyal car mini car sept places taxi yëpp yëpp a dee benn doxatu à cause de quoi li ci bokk nañ ko génne ku ne xam na ko application yàq na transport war a génn yàq na transport teg yàq na circulation c'est dommage c'est grave suñ toll nii nag ndokk bi moom Njaay mi toogee nekk ndaw lu nangul transport bëggal ko nangul ko te gat moom Njaay mi du ku ñu de tourné de li ngeen di wax nii <laughs> ndax xamul am déw néew tourné ndax moom boo ko waxee li nga wax tam moom transport la àndal mhm. kon léegi loo ko ma da yàq sa wax rek mhm. réeróo boobu amoon nag am na moom xam na man am na lu ma ci xam waaye loolu jeex na mhm. moo tax nañ bëgg gëndali ko fi mu ne nii li ñu loo naan togg ñor na yàq lekk te waxuma la ko fi ñaata laa la ko. buñ ci yeggee ak jàmm danañ am lu ñu bëgg. insha allah rab mm-hmm. ndax euh, nit boo demee ba yëguñu la nga yëg sa bopp yow. Mm-hmm. ñu ne transport dañuy négliger. Mm-hmm. dañu jàppee comme ñun maanaam xob woow la rek nga loolu jóg yóbbuñu. non ay doj lañu ngi tolloon nag damay yërëm li tax may wax man di jooy mooy suñuy njaboot lañuy ñuy defaral pour ëllëg. ne ku mel ne man xam nga tubarkalla alhamdulilah. waaye nañ fexe ba xale yoo xam boo liggéey ñu mën a tranquille mais li bukkoon ne xale yi duñ jëriñu ci oto. te du teel mënta nag ngay favoriser ko amul këy. warut def temps pour def transport. loolu ban réew may fay ñeenti junne ak ñeenti téeméer yow ngay fay junne ak ñaar téeméer nga nga gën maa woon liggéey ci dëkk bi fan la tege fan la tege. ki yorul kay ki yorul permis nag yorul numéro. yorul yorul transport en commun poids wala poids la sa lay wax ba pare xamul dëkk bi toujours man client léeg-léeg ñu dab ma père na dem kii de place sangam la jëm maa la indi facture la nga fayee ma yóbbu. bu ko defee maanaam billaay papa oto bi ni mu gaawee nii man na ko yaa ngi xar sànni sa bopp oto bi gaaw na mais yaa ngi xaru. Mhm. oto bi amul assurance pour nga di ci dugg. Mhm. nga ne ah ma ne la waaw assurance particulier la jiyee jom transportation mu ne lu ma ci xam ma ne ko xam ko tey. moo njaay mii nag man de wóor na yàlla ak jëm suñu doy na ma ne mën wóor na ma ne temps li ñu bëgg danañ ko am te mu ngi nii wax naa ak moom te wax na ma dégg te ñeneen ak ñeneen ci réseau wax nañu ma dégg ma lawoon loon wonne na mu ngi toog diggante bi dara xaju nañ muñ rek ba yàlla soppi ñu jamono ku fi yàlla teg ci jàmm danañu wax ak yow waxuma la bu ñu wax taxi transport yëpp a yàqu ku lu um la transport yëpp a yàqu boo ne lii boo ci ñëpp a yàqu la waaw sama boy bi daw job yor horaire nee na papa mën naa mun a ma mbaa xam man ñu yoru fu mel ore liggéeyatuñ léegi sax ñun ñoo leen di mayañ bu ñëwee yow ponk la bi yow ñetti apparente toog fi juróomi fan demuloo wees kooku kooku kooku mënta continuer waaw nooy dina la téeméer bàyyi million ngi neen ñu dee mu motuñ sax 4 pour cent nag ñi nga yàq sax motuñ sax 4 pour cent ci nit ñi motuñ kon donc alhamdulilah bi yàlla defee tey jotaay bi kontaan naa ci mm-hmm. ma gàmmali wax sànq war na lu rëy nee na fi ma toog ma téléphoné woon te gaara beneen ne nangam ñu def ñu def ko xam nga lu tax mhm. parce que dafa li liñ ko li tax ñu jiite ko da koy def su ko defuloon dàq nañ ko bu yàgg ko yàgg na ñun nag foofu lañ toll fi ne transport ñun moom la ñu xam moom lañ ci lañ dund soixante quinze laa commencé jàngoor te soixante dix neuf laa bëriwat boobaak léegi lu ma am ci oto laa ko xam oto nga kon donc ku yàq transport du ma ànd du ma wax yow sax mhm. Mor Ndiaye moo woon kilo kora ma fekk ko fa parce que xam naa transport lay waxaat ku wax ci moom leneen ne leneen la yaa ko waxee man tuur du ma ko dégg naa waxam nee na man transport moom la ma nit ñi xamee kon transport lay waxal lu waaye wax yaa xamee man transport ama ñor mais boobu wax doy man doy na ma kii kii fam ne boo gisee ñu naw ko dafay def leen bëgg de bés bu wonoon bu yox-yoxoon gaa yi ba ko te yow si trans euh, état buggul ñu juba buggul mbooloo mu ànd Senghor waxoon na ne mooy leen transport ndax transport bu ñu àndee lu ñu bëgg am ko te dañoo gaaw ci daane daanee kii seen waxoon na ko moom na xam-xam mu ne na ngeen mootu transport loolu nag gaa ni ñu koy mootoo ñoom mooy fexe ba di ñu kii dañu écarté mhm. loolu nag léegi xam nañ ko moon ngee xam na ko góor ku ma xam na ko ainsi de ñoom ñëpp xam nañ ko fi mu nekk mhm. ba kenn ku ci ne sa bakkan bii ci nga ci transport nga koo teg dana normal ba ñëpp am ci jàmm mhm. kon yàlla ñoo yàlla defal jàmm lafañ cot ba lépp sotti ci jàmm mhm. waaye na seen xel lan ci côté boobu jërëjëf kon mi ngi noonu kooku mooy suñu consultant di Baye Mbaye Touré di jaajëfal per euh, père Baye Magama euh, LC mhm. ginnaaw bi ñu wàññiku waatee ci yow euh, ni ko Baye mbay waxe ak Baye Magama kon fi mu toll nii ndax yéen yi nga xamante ne yéen ay kilifa yi Euh, sëfoor si yaakaar leen ndax yaakaar googu ñu am ci yéen toujours yaakaar gi mu ngi fi ndax sëfoor si tam des fois dañuy wax ne sëfoor su bëggee lu muy faj faju nay jënd carte syndicat sëfoor su bëggee lu muy faj faju lu lu xew lu syndicat woote na ñëw teewe fa ndax sëfoo si eh, yow mi jiite côté boobu ndax sëfoo si déggal nañ la ci côté boobu ndax bàyyi ma gàmmoo mi kat am na lu mu wax ci waa këram te defe naa yow njaboot gi nga jiite fii macha allah sakkan nañu bari nañu lool ndax loolu itam muudu ñu ngi koy jëfe ñu ngi jënd sa carte mm-hmm. boo wootee réunion ñu ñëw mm-hmm. ndax li tax may wax loolu ëllëg dafa jot a ndax bu bu gerew amee ñu ne sëfoor sépp nañ taxaw defeyaa yi nga xamante ne ñu ngi ci biir safoor yi moo tax may wax ak ñooñu nan lañ leen di yooyu du am ci suñu biir xam nga maanaam euh, gis nga nit moom lu mu ñàkk nangu ñàkk nangu boo yàqee alalam wala yàq matériel am hmm. dana jóg maanaam dañoo sonn fi mu toll nii moom danañu neex a woo ndax dañoo sonn léegi nag nit day waajal boppam xam nga nga am carte syndicat carte membre c'est une carte membre adhésion la rek. adhésion la au contraire xam xam ne boo ko xoolee fi mu nii syndicat yi amuñu benn avantage bu raw bi ci sëfoor bi bokk ci syndicat bi am. adhésion syndicat carte membre la rek. mi ngi mel ni GIE ba nga xam ne moom la euh, monsieur le consultant Baye Touré jiite ci Almadi wala ma gàmmu mii ku fa amul carte amoo fa droit wax. Mm-hmm. mais doo yem ci carte membre boobu da nga war a am da nga war di cotiser. Mm-hmm. da ngay cotiser mensualité. Mm-hmm. syndicat looloo war membre bi dafa war a am carte buy wane ne adhéré na ba pare. bu ko amee muy joxe li ñuy wax cekof Tchekov mais malheureusement. Tchekov mooy lan moom transport xamuñu ko voilà mi ngi noonu. par exemple mbay. xaj na du ñàkk mbay bajaan <laughs> misaal rek laay joxe waxuma parce que yow moom du ma la defal intervention yow moom kàngam nga ndaanaan nga ci misaal mu am cas boo xam ne xaj na du ñàkk du Ndiaye day war a déplacer mm-hmm. parce que téléphone yi dina régler lu bari waaw léegi su fekkee da am carte syndicat yow nga am yaa xam loo amee carte syndicat bi ku nekk rek na mu jaay carte syndicat bi yaa xam loo ko amee. Mm-hmm. par exemple nga am cas fii ba Kolda wala ba Tamba. Mm-hmm. ma war a déplacer dem régler ji loolu. Mm-hmm. oto bi may déplacer carburant bi may rek aller retour ñëwaat. est-ce sa carte boobu mën a remboursé loolu. mokk mënu ko remboursé. bu fekkee da ngeen nekk benn groupe ma gàmmoo garage am mu ngi fa. ak 60 membres ci misaal wala 100 wala 200. dañu war a organiser cokkof ci garage bi di ko def ci keesu syndicat bi. Mm-hmm. par weer wala par. par jour la war a nekk ñu koy dajale bu weer jotee. Mm-hmm. ñu ne liy dem ci keesu syndicat bi. Mm-hmm. normalement par weer la. mais dama ne lu gën a yomb ci ñoom ci misaal laa la jox rek. boo demee ci enseignant yi wala nga dem ci docker yi wala nga dem kenn ku ci nekk. boo xasee ne adhéré naa ci syndicat diw bu enseignant bu jàngalekat. bu weer dee bala ñu laa fay dañuy tëq. li nga adhéré ñi yóbbu ko ca mm-hmm. compte syndical mm-hmm. directement mm-hmm. muy mille francs wala 2000 wala 500 dañ koy dagg ci sa salaire yóbbu ko ba waaye loolu boo ci amee deux 200 personnes ñaata la xaalis la xaalis la hmm? day dem ba contravention bu ngeen war a fay reçu bu ngeen war a fay mën ngeen jël fay ko syndicat bi war a déplacer pour seen ay bons gens day déplacer pour loolu mais au contraire malheureusement man ku mel ni Modou Ndiaye man déplacement yu bëri muy maa koy def sama propre moyen bopp. Mhm. parce que dama am amour bi maa opté pour nekk ab syndicaliste. léegi nag li ci war Modou Ndiaye mooy fexe ba informer leen fexe ba ñu xam. Mhm. parce que communication dafa baax. Mhm. ni ñu bëri xamuñu mbay ba ñu syndiqué mais ñu bëri dañu xamul. mais transport dafa bëri ñu ci dugg ci loo xam ne fi mu toll nii ay amateur la ñu ñu ay professionnel. ñenn ñi di ay opérateur d'affaires. da ci bëri. ñu ci bëri dañu ñëw pour wut xaalis. fab seen xaalis bu bëri investir ko pour récolter. mais ñi leen di indil xaalis bi muy chauffeur yi gisuñu ci dara ay salaire cinquante mille ak yooyu lañ leen di fay mu bari ci ñoo xamante ne bii dañu ñëw pour jàng métier daf benn un an deux ans am permis dawali kooku du am benn qualification du xam métier chauffeur du xam métier bi du am amur bi mu nga yàkkamtee rek nu mu dajalee xaalis ba amee fi boppam mais li nga dégg président Touré li mu la wax léegi. 75. ba 79. 5 ans la 4 ans. ngay jàng oto. Mmh. waaw xam nga ne kii rampe na. Mmh. pratiqué na. Mmh. xam na lan mooy métier mi. ba nekk fii macha allah. kon mbay mbir mi li ci sooxe dafa bari fi ñu ko war a xool dafa bari ah. fi ñu toll nii nag ku opté nekk ab syndicat jàppal ne sonn nga ni nga sonn mooy di nga dégg lu nekk. mais dangay jàpp ne ñiy wax genn wàll gi dañoo xamut. yow nag yaa leen war a xamal ci ñi bëgg a xam nag laay wax parce que am na ñoo xam ne xamuñu leen mooy syndicalisme bëgguñu koo xam mais ku nelawut képp koo dégg mu naan la syndicalisme wala nangam nangam jàpp ko ne ku xamul fexe mu xam parce que bu ñu demee ba ne OIT muy organisation internationale du travail muy bépp àddina fu liggéeykat am ñu tënku ci genn kuréel tudde seen bopp noonu Sénégal bokk ci ñuy ratifier convention boobu nga am récépissé boo xam ne ministère de l' intérieur moo la ko jox. Mm-hmm. mais war nga xam ne loolu caaxaan. Mm-hmm. nan nga koy exploité nag nan nga ciy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw. Mm-hmm. looloo waral boo jógee ne da ngay syndical foog am enquête de moralité bu ñu teg sa ginnaaw. nga jaar fi nga war a jaar yépp pour ñu man la offrir récépissé syndicalisme. loolooy waral su nit di ba fuyee droit syndicat da ngay xam ne dafa xamul. ki xam bu demee bay bafouer droit syndical boo ko yóbboo ci yoon dañ koy tëj. ki xam droit syndical kenn du ko bafouer. même état waru ko bafouer. waxuma la simple citoyen. parce que association reconnue la par par l' ñu dajale di liggéey di daan seen doole. ñu reconnaître leen. kon ko ku ca bokkut waroo ko saboté mais li ci suñu rôle mooy di informer ñi di leen sensibiliser di leen defal former. d' ailleurs daanu dajul suuf. yaakaar naa ne euh, jaxasoo dëkk bi ak. yi fi am moo waral mais xam nga ne xam ngeen ne chaque un an ñu jël ab salle fii ci Ndakaaru wala ci régions yi. Mm-hmm. bi ci mujj mooy chambre de commerce bu Saint-Louis. Mm-hmm. dajale naa fa quatorze régions yi Sénégal yëpp. Mm-hmm. defal leen fa formation deux jours. en deux mille vingt deux. def ko chambre de commerce bu Dakar cinq cinq cinq cinquième édition. quatorze. boobu ñëwoon naa ci. waaw ñëwoon nga ci. trois quatre gare routière de Touba fenn fu ñu rek defal naa leen fa atelier sur la sécurité routière dégg naa ko mooy ya fa dem yëpp maa ko mobilisé. Mm-hmm. est-ce que état waru ci woon dugal loxoom. bien sûr est-ce que chauffeur yi waruñu woon nekk propre mm-hmm. partenaire bi. bien mm-hmm. mais aussi boo jiite da ngay jiite dara. looloo tax foog mën na ngoo investir sama alal sama xam-xam samay partenaire ci ñi ma àndal ba ñu yeewu xalaat naa ne bu ñu yeewoo dinañu xool fi mu bëgg ñu yeewu fa ko ñu jëm fa mooy kër ni ñu am jàmm. kon li ci nekk yàgg-yàgg mooy nit ñi dañoo xamut mais bañuñ dañ leen war a xamal. bon man nag c'est prendre mon responsable kani euh, responsabilité kani ni ma ko waxee woon li ma fas yéene mooy di wàcc terrain bi di wax ak euh, dawalkati oto yi muy chauffeur yi di leen sensibilisé sama kéemtalaayal kàttan mm-hmm. ñi xam par exemple maa ngi ci profito di nuyu Modou Ndiaye Darou Salaam nga xam ne responsable bu mag la ci syndicat bi. moom laa àndal mi ngi ci saal bi. Eh, démb ak tey ba fii may wax ak yow nii. démb ba léegi mi ngi organiser ay garage yoo xam ne maa ngi fay dem de réunion ak yow. démb ñu ngi woon marché bu bees tey jii ñu ngi woon maris démb ba léegi nopp luur

nga dem Saint-Louis fekk fa Dame Ndiaye ñoom. mais da moo du Ndiaye nekkul ni syndicat bi mu yor rek moo war a doxal transport moo mën a lijjanti transport déedéet. Mm-hmm. loolu may def li ma koy jàpp dama jàpp ne lu tuuti la ci biir transport. Mm-hmm. kon damay demander sama nawle yi ma séqal secteur bi muy secteur général syndicat yi. Mm-hmm. ñu fexe kenn ku nekk la muy bay ca ruqam muy la may def ak la keneen di def. xaj na la may def ci gën a tuuti. ñu fexe dajale ko mu nekk benn. loolu mooy dimbali ñi nga xam ne ñi ngi ci secteur bi mais kenn ku ne feeg yaa ngi toog sa roq di bay sa dina baax mais da du feeñ parce que ña nga àndal bu dee juróomi nit dinañ ko gis mais du feeñ parce que transport yaatoo noonu dafa transversal dafa yaatu hmm. xam naa dañuy wax waa rees yi ñu wàcceel ñu numéro bi fii ci suuf euh, gars yi mën a dugg participer ci seen émission jotaayu transport ñu am fi tey LC Modou Ndiaye ak Baye Ma Gamou Niang ak suñu papa Baye Mbaye Touré Euh, bàyyi ma gàmmo comme dégg nga ni ko sunu el ba Moodu Njaay waxee mu nekk euh, jafe-jafe goo xam ne nii rek toujours euh, su baaxee it day am lu des ci gannaaw les ca la des ca gannaaw nag complement bi itam toujours indi ko du yomb ndax ba tey sëfoor si boppam bu fekkente ne bëgg nañu itam du cent pour cent du cent pour cent ndax li tax ma wax loolu da ngay yeb sax client mu ne mu ne mu ne yéen luy bu ngeen bëggoon mu deñ dana deñ parce que ku fayut impôt ñëw ci seen biir yàqal leen bàyyi ma gàmmu ñoom kooku da ciy cité ba cité ci moto yi cité ci ba cité ci alu taxi bi nga xamante ne tey bàyyi ma gàmmu waroon na xëy dem yóbbu client aéroport wala mu yóbbu client boo marisé tey alu taxi booba xañ na ko alu taxi booba tey xañ nañu tey ñu am client kees wala mbuur alu taxi booba tey xañ nañu sax ba ñu am course région ak région kon bàyyi ma gàmm loolu nan lañ koy saafaraa ndax booy xool itam sëfooru alu taxi bi sëfooru alu taxi bi bi nga xamante ne moo yore tax euh, alu taxi bi di dawal am na ci ñooñ ay sëfooru taxi lañu. am na ci ñoo xam ne ay sëfooru taxi lañu yàqu-yàqu yooyu naka lañuy ñuy mën a def ba ñeddi ko ba mu set bàyyi ma gàmm. waaw Mbaye Badiane yàqu-yàqu boobu booloo moo koy dindi beneen bi mooy. Hmm. am na contravention yoo xamante ni ñu ngi koy teg ci xale yi te c'est pas normal fii amul benn reçu bu ñuy fay douze mille francs xale yaa ngi koy jooy guddi ñu ngi koy jooy bëccëg ñu lay jàpp ni la douze mille francs ci safoorub taxi. safoorub taxi safoor war gay de bu ñëwee kenn ko jàpp ci douze mille francs tey yaa ko gën a valable fuuf yaa ngi fay vingt et un mille cinq cent moom six mille lay fay six mille francs lay fay te li nga yëpp moom lay yëpp. gis nga Jakarta xaw ma cag man wax dëgg yàlla dama defuma leen ñoo xamante ni dama leen di boole ci transport parce que dama jàpp ni rek ku gëmul boppam mooy dugg ci deux roues ku amul responsabilité nit bu amee responsabilité dana dugg ci lu confort pour dem ba tax na man duma leen waxal dara pour di leen publicité wax dëgg yàlla waaye lii nga xam mais dañu laa yàqal bàyyi ma gàmm non xam nga li ñu mënti yàq benn nit la ñuy yóbbu yow taxi nga yor man aw ma kuy def jakarta ñaanu ma ko yàlla am. mais dama xam ne ñoom conséquence bi leen ciy fet ak client yi. moo gën a dangereux. man gis naa ko daaneel nit romb ko dem. ci moto ci moto jigéen la daaneel nii romb ko dem ba mu ne leen dañuy constat dama ne ko yow mënuloo constat da bëgg a daw. Mhm. mais gars yi gëmuñu ma fi ñu taxawee di wax fi la déparé ci foire bi dem yoonam. bàyyi ko fa ni day woowu sapeur. kon nit ñi tamit boo leen di sensibiliser ñoom ñoo war a xam li ñu war a dugg parce que chaque jour nga wax leen ne oto bii ngay dugg assurance bi assuré mhm. mais nit ñoom bu dëgër bopp. si nga dugg ci oto bi nga xam ne am na këyit. maa day taal yi ci fayu. moo gën fuuf nga jël oto bi nga xam ne une heure mu def ko yoon Touba boo daanoo foofu boo dee say mbokk ñàkk nañ. man de wax dëgg yàlla bu ma génnee sax di dem dëkk ba su may ñibbisi taxi laay xaar bii sax du ko dugg ma parce que dem naa ba xam ni. am na ci yoo xamante ni nii indiscipline la dafa bari nag ci transport boo bëggee wax rek lépp transport ak bëgg a baaxal lépp. Mm. transport lépp lépp baaxul de. lépp lépp baaxul mais aussi nit ñi dañoo war a am euh, civilisation boo xam ne booy dawal nit ñi comportement bi ngay sol. Mm. alkaati bi du la yeb client bi ngay yeb du la yeb. Mm-hmm. des ngis ko client jox dix mille francs ci ci ci 2000 muy kaas. Mhm. te pourtant mhm. client moo ne ci dëgg. Mhm. un tiers lañ la wax. bu la ñu joxee 10 000 francs yaa war a wuti weccet. bu dee 1000 francs moo war a wuti weccet. mais da ngay gis koo xam ne du ko def. te transport bii buñ ci jàppee dana dëgër lool. mais nag il faut ñun ñëpp kenn ku ne dellu sa ginnaaw reculer. xool li nga bàyyi woon. ñu joxante ay loxo. ànd. ñu ubbi ñu ubbi ñu ubbi ligne bi rek bu ko defee. Euh, ki nga xam ne mooy waa régie mën nañoo wàccee numéro bi ci suuf euh, gars yi mën ñoo gis incha allah mën ñoo dégg ku bëgg a woote woote Pa Omar mën na wàccee wàccee kon mi ngi noonu kon Baye ma gàmm foofu ngay daaneele waaw Baye Mbaye Touré euh, dégg nga Baye ma gàmm li mu wax ndax toujours itam ñun ci suñu biir dafay am luy manqué manque de respect ñàkk fonk li nga yor ba tax na tey client bi bu la nee sut sax bëgg laa jël am na fu xelam di dem ca fe xelam di dem amaana tey ab ab ab taximaan moo ko fa yóbbu woon dawalkat dawalkat hmm. mhm. mhm. kon nañu Euh, kon foofu Baye mbay kooku it nan la ñuy def ba defar ko ndax toujours ñuy wax ci ay noppam li ngay wax ci ci ci rajo bi chaque jour taximaan yi di ko dégg mais taxut benn tax di woote fii ci rajo bi wax li ko fi metti wax la lay defar transport doo dégg benn taximaan réagir ci rajo bi yooyu naka la ñuy def ba yar yar boobu ñëwaat ci président Modou Ndiaye lay njëkkee. Mm-hmm. dafa dafa wax lu am solo. Mm-hmm. syndicalisme dafa jafe yomb Cheikh Ndiaye Tiraak moom moo ko daan wax. Mm-hmm. mu ne ma baytu dama bëggoon ñu ànd maa une semaine ngir li may daj. ma ne ko jëru ko nag maa ngi lay déglu comme ni ko Modou waxee nag dafa am ñoo xam ne xamuñu. am ñoo xam ne bokkuñ ci métier mi dañ cee dugg rek malgré di ci commerce. mais Modou mënoo nekk ci oto. ñetti weer ñeent nga am permis nekk chauffeur dawalkat nga xamoo oto te loolu wax naa la fii ne la booy di wax taximan del wax dawalkat yi taximan yi ñu ngi lay déglu de te li nga wax ñu ngi ci li gën a gën a gën a garaaw mooy taximan bu ñuy jaawale jaaykatu mbool wala am maçon loolu am na ci taxi yi ah gisoo ko yow <laughs> man gis naa ko démb rek démb rek gis naa ko te yaa ngi koy gis bu màgg a su mu gis léeg-léeg sax ñu ne jëy di weccal ñu sëb sa ni mu comporté naka ñu gën du ko wecc mais dawalkat lañ dañuy wax nag ñun pour ñu baax ñi nga xam ne mécc mi mooy seen mécc d'office ñoo tax ñuy wax waaye dawalkat bi jàngul oto xamul oto nopp yi da koo tëj mun wax ba mu dégg li waaye nañu wax parce que bu yàggee yow yow mi am sa oto mm. da nga xool ki nga koy jox li ko moon jaay waxee rek ñi nga ñi wàll si transport xamul ni transport kuñ ko jox sa oto mais moon bu ah ñëpp a koy dawal de. xam comme koy ah yii yow boo amoon ko ko da moo noonu mais nag ki xam da cee wàll si ak ki nga xam ne dawalkat la bu suboon ñëw ci suñu biir ñoo ñëw ñu sonal nañu dimbale ngir yàlla ñun ay nopp lañ ñun oto lañu yaakaar tey ëllëg waaye dama ne moon jaay wax na ko am jom solo nañ jàpp nañ leen jàpp li njiit yi jënd seen carte bu ñu wootee nga ñëw ruq boo ne daf man def ma toog suba yu ma toog lu ma wax dama leen sa waxal ma ndax wax ma ne la noppi leen seen aajo fajul ndax syndicat nekk nañ benn dànk ndax xam nañ ne transport leen jiite te bu ñu wanee sëfoor si ginnaaw ñu wan leen ginnaaw kon ñi mu yoon sëfoor si ginnaaw mhm. sëfoor suuf sëfoor tax ñu xam ne alsan bi mi ngay gis nii ba ma koy xam mi ngi yor kaar ñu daw si ngeen soo Dakar mhm. ma maîtrise Sarr mu yor ab kaaru ndongu ndongu mhm. yàgg naa koo xam nee na ma bàyyi tuuti mu naa mun a man lu mooy waxal baax na waaye man transport tax may dund du ma am ci laa ko am kon su ma su ma nit sëfër sama bopp laa bañ. Mm-hmm. te wax jooju tam moom Ndiaye mënu ma koo dindi. mu ne ma man mënuma nit sëfër ndax sëfër sëfër laay dund. buñ ma xamee sëfër yee tax kenn mënu maa jënd ba tax ma waxal sëfër lu bon. ku ko wax nag banaa la ak yàlla parce que njiit laa njiit lu ne ngay dégg waaye tey tey li nga wax mun njaay tey bàyyil sa ne li ngay def say nawle ñu ngi ci parce que région boo dem maa lay dégg xam nañ li xew man maa ngi lay déglu bu baax xam nañ li xew waaye nag gàcce nga la ma parce que yow oto nga xam oto tax ñu xam la oto tax xam la bu ragal demal yi nga wax noonu maanaam man euh, manque kii la maanaam euh, communication moo manqué parce que am na boo yoo xam te boo la waxee tey nangam dañ naan ah père loolu am na ndek ci oto xam nga kooku xamul oto mm-hmm. mais ñun dañuy wax di leen dimbale parce que buñ xamee dañ xam ñoom ñooy kan taximaan ku jógee fu waay jógee moo lay yóbbu muy sëriñ bi wàlliyu bi wuyu bi saasaay bi nit ku bon képp yaa leen di mais est-ce que nga leen. mais yow nekkal normal yow yow nekkal normal rek yow bu la kenn yem dawalal dawal bu baax waxal li nga war a wax lu ñu fàcc soto moom moo ko lu ñuy wax nag ci mbiru nangam nangam maandu ci taxi man day maandu ah. Mhm. lu na nga dugg sa làmmiñ. Mhm. dégg nga bu baax. Mhm. Mon Njaay bu ragal dara doxal. yàlla ne la may ñu santaat defal ñu ndam ñun ñëpp ci barkeel ko bu ragal dara suba daa ngi sa ginnaaw mhm. ma gàmm dama bëgg nga xam ne taximaan yi ngay wax dellu wax dawalkat yi ci comportement bi nga wax laa lay tontu tawat taximaan ak dawalkat du benn dawalkat nag dañ fee bari léegi mënoo ci dara mënu ma ci waaye nag suñ la fu ñu toog nañ ko wax nañ ko jàmbat client ñoo war a yeew comme ni nga ko waxee xàmmee nit ñi mais client yi xamuñ xam nga lu moo njee benn taximaan def fan yi mhm. wax naa ko kii waa ji da koo fay orange money xam nga day am numéro téléphone am wàcc fàtte ci calpeel ñaata la wax quatre-vingt-six mille mu fay téléphone ba fi mu ne waa ji bind na ba mu ngi koy siiw kooku su kooku su kooku taximaan la xoola ki la fay orange money waroo xam ne sa numéro mu ngeeg mu yàgg mu ngeeg yow mu ngeeg moom mu fi mu ne carte ba quatre-vingt-six mille la ca ne bu ko moom mënatu ko jot téléphone waa ji nag def na def jaar fi mu war a jaar buñ ko jàppee man de mu ngi ma naan tëj leen ko bu ko kenn bàyyi. man loolu laay wax. parce sàcc la. sàcc man war sax ay millions la nit jënd ay oto millions jox la ko mais yaa xayta moo njaay yaa war a porté sa client bi dalal xelam. mais bu demee ba client yi ragal taximaan yi ak cause de boy dawalkat yi ñu ngi ñuy tooñ ñu ne taxi loo ci fàtte doo ko gis nañu nañ koy nañuy séparé nag. a buñ généraliser man de billaahi barkin Tuubaa soxlu ma un franc client bu mu moom man soxlu ma ndax yomal kaam kenn du ma fa ñaanu ma ko tam te bari naa ci moroma ma gam boobu million ci oto du ko xam nga loolu koy yëgal mm. ka ka ko kam ko joxoo koy waaye du la ko wax moo njaay mi woo ko ñuy waxam ndax day toujours day engagé wu ci mu jàmbur ba financé alal la mhm. waxuma ko mais maa ngi koy dégg donc mhm. amul kubéer man Mout Ndiaye fu ne laay ànd ak moom mi ngi nii toog man nag fu ni toujours demande sa moo Ndiaye mi nangam mhm. ma ne waaw nax la ba nga wax ma ma kontaan ci suñ ma waxoon lu dul noonu dama koy wacc fenn ko sa waay attention de nangam nangam gënee la góorgóorlu mais yow ni waaw baax na comme syndicat xam ne ne transport la tey ak ëllëg ku la yëgul yëgal sa bopp fi mu ne nii nañ ñaan yàlla rek ndaje mi. Hmm. yàlla na nekk ndaje moo xam ne ba aljana la te mu yéex. jërëjëf ñu kenn man a dugg suñu diggante. ci barkeel kon man fi may tàbbalaat sama laaj ndax ni ngeen defoon ci quatorze raison yi eh, noonu lañ koy defee waat wala duñ ko defee waat noonu ndax eh, communication bi eh, comme ni ko Baye Mbaye waxee léeg-léeg manque de communication bi bu dente ne groupe yi bari na des manque communication bi du daj ndax am na safoor yoo xam ne yor nañu téléphone am safoor yoo xam ne yoruñu téléphone mm-hmm. ndax euh, li ngeen di naal bis buñ ci yàlla yóbboo ndax da ngeen di defaat karawaan euh, comme ni ngeen doon def di sensibiliser safoor si dugg ci quatorze régions yi euh, ndax noonu ngeen di def wala nu muy demee waaw président commission réconciliation noonu lañ ko tuddee jiital ma ca bopp ba commission biy defaraat ki nga xam ne mooy coordonné groupe whatsapp bi woo na ma ci semaine bi xamal ma ne war nañu am ndaje Padoa la cinq ginnaaw suba la defe naa ne la 5 mm. invité naa leen ci yéen ñëpp ci bureau Dame Bey mm. ñu bëri xam nañ ko waaw waaw waaw invité naa la fa yow itam ndax day baax comme émission bi émission transport la. Mhm. lii xew ci biti transport. Mhm. ñu la koy jot li nga di ko mën di indi fii. Mhm. parce que gis nañ la leeral lu bari fi lay jàlle kon dañ lay soxla foofu nga jël ko boo mënee couvrir émission boobu sax. nga ñëw fa fekke ko. xam la ñuy waxtaanee ndax transport la. la cinq incha allah à partir de 15 heures. ci Padoa ci bureau Dame Bey yéen ñëpp woon nañ leen ci. ci wetu bi pont bi. ci wetu pont bi ci ah, pharmacie. waaw ku ci ñëw ci gaarasu Ndiaga Ndiaye rek boo nee bureau Dame Bey danañu la fa indi. muy que ni comme commission bi ñu ko taxawalee léegi lee mu jege at. Mm-hmm. commission bi di def lu bari mais ci wàllu réconciliation ñu jiital ma ci bopp bi. Mm-hmm. yàlla dimbali ma tamit ma gën a dalal sa xel kani mm-hmm. lépp luy secteur généro syndicat. bu nekk Sénégal. daje naa ak yow. dégg naa ko nga ko te kenn ku ci nekk dama laa wax ne wax ma fi ma lay fekk. <laughs> comprendre nga. honorable député Alassane Ndoye sama grand frère. dama ko woox mu ne ma est-ce que doo bàyyi ma fekk si la ma ne ko déedéet xoolal fu la neex. mu ne ma fekk ma synthèse ma fekk ko fa ak ténoram yi muy àndal yépp ak ñi mu seqal commission bi. mu joxe kàddoom en cent pour cent d'accord na ci. cadre unitaire des syndicats de transport routier bi nga xam ne Karamba Gadiabe mooy coordonnateur ma nekk adjoint am. ma dajale leen tëngeej ñoom ñëpp. Mm-hmm. juróom-ñeenti secteurs généraux nekk ci. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu joxe seen kàddu adhéré en 100 pour cent. Hmm? kon lu fa des. ñëpp joxe seen kàddu à 100 pour cent. li ma wax ma nañ ma témoin. te itam cër bi ma waa commission bi tax jox na ndaje yi day nekk ndaje yu gàtt ndax ñoom ñëpp bala ñoo dem dañuy dajale seen kàddu jox ma ko keneen du wax. Mm-hmm. ñoom ñëpp dañoo seen kàddu. parce que liñ bëgg leen la. waaw comme maay ma maa jiite mm-hmm. suñ ma waxee liñ ma wax dama koy sotti ki ma fekk si ki ma fekk si tamit suñu ñëwee ñañ fekk dañ koy delloowaat seen kàddu mu jeex. ndaje yu gàtt la mais yu mm-hmm. ba ci Pape Modou Ndiaye mi jiite gros porteur yi la même chose noonu lañ da fekk ko fa mu nekk. Mm-hmm. kon ñëpp fe ànd nañu. léegi nag li ci des mooy confirmation bi ci ndaje moom nag moom lañ woote la 5. xam naa la ñuy def nag mhm. duñ ko mën a gën a wax waxagun ci plateau mbay Badiane waaye bu ñëwee ba takkatoo ko pare mhm. sénégalais yëpp dinañ ko gisal ma profité ci Mbaye mhm. gis nga li nga doon wax léegi góor gi Touré ci wàllu taximaan yoo xam ne xaj na dafa def lu mu wërta def mbooloo ma dem loolu am na fa mais loolu duma ko mës a lu benn yoon taximaan dafa war a def loo xam ne ku ko dégg ne waaw góor ñu naw ca yeneen taximaan yi Mbaye Badiane ñi seen doom la xam ngeen ni Mbaye Badiane yi seen doom la. Mm-hmm. comportement bii la ma sa am. Mm-hmm. bu amoon benn comportement bi du mën a ñëw ci télé bi bañ ko fii confier benn émission. mukk mukk Thierno mukk. l'homme qu'il faut la place qu'il faut. de waay. télé ah. kon bu ñu demee ba confier la émission trente euh, une heure trente ci télé bi sa comportement moo tax. Mm-hmm. ak xam-xam bi nga nangoo déglu. Mm-hmm. ci kilifa yu mel ni ñu di la ko andil. Mm-hmm. parce que transport du benn bopp. da ngay nangoo déglu te loolu yàlla def na ko ci yow. bon mm-hmm. am na ñu def lu gën a doy waar loolu ci taxi. waaw am na mais am na ñuy def leneen lu baax li baax. am na nañ ko fësal nañu fësal leneen. d'accord naa ku def naka su dul noonu. nga yéebaane ko comme ni nga yóbbaane ki waaw waaw. mais am na taximaan bu ñuy wax Maguette Sarr. xam nga fan yii am na benn taximaan koo xam ne def nay vidéo ne dañu fàtte lu bari ci biir otoom ab xaalis. Mm-hmm. mais amuñu numéro amuñu turam. amuñu imaasam kon loolu mënuñu ko justifier. Mm-hmm. am nañu ay vidéo nag. Mm-hmm. mais bi benn ci bi ma leen ci mën a wax bu ñu mën a justifier. koo xam ne sama njaboot la bokk. am na tax taximan man mën naa tudd turam parce que lu baax la def. ku ñu wax Maga Sarr. ma nga ay AIBD. lu toll ak ñeenti at ci ginnaaw. am na benn étranger bu ñëw fàtte mu yóbbu ko cees bi mu ko yóbboo Thiès wàcce ko mu fàtte saak ci ginnaaw oto bi mm-hmm. Maga Sarr dellu siwaat aéroport mm-hmm. bay gaare otoom bi muy bale otoom di ko tëj mm-hmm. war a dem ba suba ci la gis ci ginnaaw oto bi saak mu jël saak bi tijji ko gis ci benn carte d'identité mu continuer gis ci xaalis mu tëjaat saag bi ne carte d'identité bii de ki ma yóbboon étranger la carte d'identité lay doon woo ay chauffeur ci aéroport yoo xam ne xam naa leen waaw mu ne leen lii dañ ko fàtte sama oto kaay leen témoin mu ñu compté ko ñu compté ko ba pare. Mhm. mu ne leen nañ leen dem gendarmerie ngeen témoin mhm. ñu dem gendarmerie mu jox ko chef de poste bi ñu compté ko fa mu ne nañ ko fa bàyyi ndax moomuma ko saa bu borom dellu soo ñu jox ko. Mhm. gis nga fi mu woon ba kooku ñëw étranger boobu ñëw. ab tubaab la ku weex ku xong la. mën naa bañ a tudd benn tur. ba mu ba mu ñëwee. ba bët setee heure ba mu ko jëlee dafa fekkaat mu nekkaat premier quart ci aéroport muy laajte. moom xàmmewu ko guddi la. te étranger la xàmmewut. mu ne ko man mii ngay laajte sama oto la ci man nga ko fàtte woon. gaa yi mu àndal ñu ngi fi tey ñu ànd dem chef de brigade bi. Mm-hmm. bi ñu ñëwee waa ji bi mu gisee saag bi dañ nañ ko jox saak bi lu mu ci fekk baax na. ndeysaan. taximaan bi ne ko non Magasar dañ koy compter. Mm-hmm. ñu compter ko mu yëkkati mille francs mm-hmm. di ko ñu jox mu fab 5000 bi mayaat ko paa yi foofu. moom Magasar. dinaa fexe nga am moom plateau. ah loolu mën naa ko si ah, bien sûr waaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ah, ñeneen ak ñeneen. am na dëgg kon taximaan. du ñàkk nag loolu ala kulal Mbaye Touré mbooloo demee noonu. cee bari de kër goo dem rek du ñàkk ay. ay ay kii yoo xam ne. mooy li ma am ñoo xam ne ay amateur lañu. waaw jeex na dañu ñëw pour wuti xaalis. Mm-hmm. ay de affaire mm-hmm. ñoo ñoo ci bari. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne dañu jàng métier mi. Mm. ramper. Mm. ba am permis am livret de conducteur. kooku du foyee métier mi ndax day xam ne mënu la jóg ci tali bi déedéet mais taxi yow sa bopp rek leer na leen ne Mbaye Badiane bi nga commencé taxi ak léegi yaa fi gën a niiwloo taxi ci nii nii mais leer na ne la yeb nga client yebaat ko ci béréb bi nga ko yebe woon jëlaat ko ay yoon waaw ngeen tombe daje waaw day am benn koñ kenn génn fa nga jël ko waaw ñaari semaine wala un mois ngeen dajewaat mhm. mu ne la xam naa la wala xam na waaw képp ku nekk ci taxi na xam ne loolu mënoo caa mucc kon lu ñu bàyyi sa oto jàppal ne loolee fexeel seeni borom jot ci mhm. jërëjëf waay defe naa loolu laa doon leeral ci côté boobu. Mm-hmm. bu dee lu jëm ci wàllu sa question sànq moo doonoon. ndax waaw ni ngeen defoon. waaw mooy waaw waaw. waaw waaw du ñàkk sax ne dañuy demaat ci biir Dakar ak régions yi yëpp. Mm-hmm. ndax am na ku ko wax léegi bi ñu waxtaan bala ñu dugg régions yi sax gën a sonn. gare routière régions yi boo ci demee danga leen di yërëm. wallaay liggéeyatuñu. ah liggéeyatuñu dara. ndax war gaynde yi. waaw waaw ah? transport irrégulier bi. billaay billaay état bi moom mi ngi profité di duufal gasaga am. di def Dakar Sénégal international. Dakar dem dikk ah ñun ñuy gën a suuxal suñu bopp. Oh. mais lu ci bari nañ ko xoolaat ci nun la. genn wàllu auto transport en commun yi genn wàllu sëfoor yi yi doon dawal kii ñi ngi dem di war dawal war gaynde nañ waxante dëgg. il faut di la la vérité. il faut ñu waxante dëgg. Mm. parce que tamit aussi euh, nuñ koy waxeeti ku ñuy ku bëgg omelette di nga nangoo toj nen. Mm. da nga wax dëgg ga. Mm. mar warut tax kenn di naan potit bu ñu téye li ñu moom fexe ko assenir ba nga xam ne ñi nga xam ne bokkuñu génn ñu ci bu boobaa mbir mi dana naat kenn ku ne danga ci xaj mais soo yàkkamtee ba gis ne xaj ne war gaynde mi ngi def aller retour deux fois ci yow nga yor minicar gaare boo bari sa manoo dem déedéet da ngay fexe tenir loolu fexe yow ñu jàpp ba loolu dañ clients yi dellu siwaat ci yow mm-hmm. Mm-hmm. mais aussi nag foog ñu nangoo sensé oto yi jamono dafay dox. jamono pa parc automobile mbay foog ñu nangoo innové. Mm-hmm. parce que léeg-léeg nga gis benn chauffeur boo xam ne oto bi mu yor du ko bëgg a bàyyi te oto boobu moo ko mag. <laughs> bari na ah, mais doo avancé. mais foofu ma la fi. par il faut ñu wax ca. am na ah. la foofu parc automobile mm-hmm. parfois saa bu ñu nee dañuy def renouvellement de parc. Mm-hmm. des fois néew ji doole ñooy lool. ñi am ñi am doole ñoo la ñuy gën a gën a waxal. loolu itam dafay tax dafa tax kenn mënatul am nooy noonu maanaam yaakaar daal. waaw xam nga lu tax état bi mooy def ay demi mesure la jël maanaam dafa jëlut ay responsabilités ba mu jeex renforcement su dee da koy def mooy oto amoon na fi nañ dolli oto mais su fekkee da ngay def renouvellement ki yoroon otoom bi ñaari at ñetti at ba juróomi at di ci daan dépassam oto ba lam cee am xañ na dépasse la ci ak yu mu faxe ween soxla mi ndaw boo ko bëggee remplacer oto bi danga koy jox li ñuy wax prime casse da ngay dangoo jël oto bi ci moom woo benn expertise boo xam ne xam-xam màcc na ci loolu mu experté oto bi ne oto bi nangam la war a jël ñoom état bi xam nañ ko loolu lañuy def ci tata yi noonu la ñuy remplacer car kon bu ñu bëggee def xam nañ ko ñu fexe ba valeur oto bi ñu xam ko jox la ko ci xaalis boole la ak benn banque xaalis boobee ñu la jox ñu cautionné la ci banque bi banque bi jëndal la oto bu bees mais renouvellement de parc noonu la état bi mënul kenn ku ci nekk mu yëkkati oto jox la mm-hmm. mais pour li nga wax saafaraw laa mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo yor ay oto yu nekk ci seen tur mm-hmm. nañu leen jël defal leen ay prime cash seen oto yooyu jël ko yóbbu ko ferraille ñu jënd oto bi yóbbu leen ci banque bi cautionné leen ñu fay banque bi li ci des après dem ak seen oto yomb naa. ñu mel ni Mbaye c'est facile à mais mais ñu mel ni mbay ba Badiane. waaw amuñu amuñu carte grise. waaw ca bëgg ko. Mhm. ñoom naka la ñuy def ok merci. looloo tax nag tolluñu foo xam ne renforcement rek lañ mën a def. xam nga moo tax ñaari façon la. foog ñu def renforce renouvellement rek lañ mën a def. renouvellement ki am ba pare moom ngay renouveler oto. mais renforcement fi ñu toll nii ci parc bi. ki nga mën a renforcer mooy ki nga xam ne amutoon oto nga wutal ko oto. kooku dafa yokk parc bi. mais moom day doog a kooku nag mbay am na ay bunt yu ci ubbeeku bunt yu ci ubbeeku mooy lii. donc par exemple dama la jox fenn rek fu mel ni ki AIBD. man ñi bokk ci sama GIE ak GIE yu bari nekk fa. ba ma koy yóbbu sama GIE ña fa nekk nii kenn amu fa oto kenn amu fa oto euh, ma ciy gërëm tamit bu baax a baax waa conseil exécutif transport urbain du Dakar muy CETUD léegi sax durable transport urbain du Sénégal lañ koy wooye durable dem na fépp dafa waxoon ne aéroport bu bees tax yu bees mais nun ñu nangu loolu dem wuti oto yu bees mu nekk suñu interlocuteur ak benn concessionnaire ñu waxtaan ak concessionnaire ak waa CETUD ba oto bu ñu jox dañuy wut benn caution benn montant benn caution dugal ko jox ko concessionnaire bi mu jox chauffeur bi amutoon oto ñu jox ko oto bu ñu ko joxee oto mu fay ko ci deux ans wala trente six mois trois ans mu jeex ba loo bi jëkk a wàcc aéroport ba deuxième loo bi yëpp jeex na mais ci kaw loolu looy yi di wàcc yi di ñëw saa loo amee bu ñu defee quota yi kenn ku ci nekk dañuy wax ne ku bokkoon ci GIE Modou Ndiaye wala nga bokk ci beneen GIE doo bokk ci ñi amaat ñi amoon doo bokk ci njëkkoon am ñeneen la ñuy joxaat ba fi muy ni am na benn loowu cinquante véhicules boo xam ne mhm. DER moo ko financé collectif de taxi de l'AIBD képp ku ci nekkoon ay repère doo am dañ koy jox ñeneen ñi nga xam ne amuñu ñoo amul woon mhm. mais nag loolu du ñëpp ko xam moo tax day baax seen plateau bi mhm. ñu xam li nga xam ne ñu am li nga xam ne tu sais fi buntu yi ubbeekoo ngeen xam ko mën fa jawal tamit ba mën fa far dara da ciy baax beneen bi mooy état bi dafa wax ne surtout direction transport terrestre direction générale transport terrestre xam ne Valdiodio Ndiaye moo ko jiitu dañu wax ne procès bu ngeen indi dañ leen di accompagner ku ci def procès indi ko fonds de développement des transports terrestres ñu ngi foofu loolu lay jëriñ pour boo amul garantie mu garantie la bu la garantie dem ci banque bi mu ki ne kii acteur la acteur mooy nga am agrément am permis transport en commun bu la banque bi garantie nga dem ci banque bi ànd ak moom ci fond bi ak direction transport terrestre ak CETUD ñoom ñu xam ne kii acteur bu nekk secteur transport la banque bi laaj la montant ba mu lay laaj bu yemamaay wala sax nga defar plan business boo xam ne mën na bañ a ànd ak xaalis bu leen koomu concret ak garantie yooyu ma la wax. Mm-hmm. ci ci ci recon reconnaissance su état. Mm-hmm. ñu jox la xaalis nga dem. ñu jox la oto nga dem. Mm-hmm. kon ma daaneele foofu euh, léegi ma ñëw ci père Magamo Baye Magamo. Euh, man nag dafa am laaj boo xam ne euh, ay sëfoora ma ko yóbbante. nee na day dégg syndicaliste yi seen ab xeex. seen ab xeex ndax boole nañ ci sëfoor bi bu feebaree faju sëfoor bi euh, dina am ndax dina am kër benn taximaan moo ma ko yóbbante mhm. mu ne ma nga laajal ma loolu ñi nga xamante ne tey ñoom nga invité ci sa plateau mhm. loolu sax xam naa ne euh, syndicat laa ko waroon laaj ah, waaye man ngaa ah, tontu laaj boobu ah. ndax sëfoor sëfoor <laughs> chauffeur bu feebaree dafa war a fajo mm-hmm. am mutuelle de santé am coopérative mm-hmm. mu ne lu tax seen programme loolu du ngeen ko ci boole suñu programme ñun ñun programme maanaam programme yi syndicat yi di programme nee na du moom bàyyiwul xel ne loolu bokk na ci dama bëgg moom mu dégg bu dee dee mi ngi seetaan télé bi ah. mu dégg ndax boole nañ ko ci wala boolewuñ ko ci mais loolu boole woon nañ ko ci mm-hmm. boole woon nañ ko am ñu dem doon dem di faju ji am na ci ñu bëri ñu doon dem di faju ji mais léegi yu ci bëri maanaam njiit yi ay CIE yi ñoom ñoo jël seen responsabilité bopp di jël seen kees di ci faj seen i nit mais loolu bu njëkk ñoom xeexoon nañ ko ba mu am mais dañoo dem ba ci biir mu dagg gis nga 2018 changement de parc bi 2018 lañ ko commencé woon non ba léegi mënul jàll parce que di tax mënul jàll mooy comme li LG wax des fois da ngay am koo xam ne da ngay indi oto. du am caution. 95 lañ ko commencé. 95 waaw dama juum. waaw 95 2005 2005. 2005 la 2005 waaw maanaam programme bi 2018 2005. 2005 bientôt 20 ans. waaw 20 ans 20 ans. mais bi mu ñëwee 2009 à 20 2018 ak yooyu. ci lañ commencé gars yi des fois oto yi wàcc. mais nit ñi duñu am caution. problème caution boobu muy wax nag. wal jooju aussi mas nañ toog ci loolu di ci wax. mu ni état mën na jël loolu. mais boobu ba léegi état day seetaan rek. état. dañu bàyyi suñu bopp rek. mais bu fekkoon te ni bëgg nañoo jàppale. kon day woo LG Modou Ndiaye mu toog mu toog mu woon mu woo acteurs yi ngeen toog woo ki nga xam ne mooy suñu ministre titulaire muy Mansour moo fi nekk actuellement. ñu toog ak moom Modou Ndiaye toog ak moom wax ak moom li muy wax ak moom ci affaire oto mu change def changement de parki mais ñun mënuñoo am oto bu bees ak suñu doole. parce que mënoo yor kër di fay courant di fay ndox yu cher. ba pare bëgg di jël. Hmm. oto boo xam ne yaa ngi koy fay pendant trois ans wala quatre ans yoo xam ni doo lekk doo naan ñu nas buum sa bakkan. Hmm. ah man du ma nangu sama benn élément def loolu. su fekkee nag lii ñuy wax ni moom mën nañ ko am na ñoo xam ni dañu yor dara. see bi gunge leen. Hmm. ànd ak ñoom ñu def ndax yow sa kër yaa ngi def oh, mouvement yooyu. man sama kër léegi wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla ci loolu xëy na joxe guñu oto waaye lépp loo xam ne day dem ci oto moom ñu ngi ci projet boobu muy batterie muy leneen te ñu ngi ciy xalaat ñi ma ko jox ñu ngi koy def xam nga ma xam Mbaye Badiane wax naa la fii nii rek. Hmm. ñun dem nañ ba boo feebaree dañuy yëkkati xaalis faj la. yàlla nag moo xam da nga wér wala doo wér waaye lépp dañ ko génnee ci kees gi te du ma ni kenn signer kees gii nga ni doo ko signer. est que lépp yéen sëfoor si àttan ngeen ko. parce que am na tawat yoo xamante ni parfois am na tawat yoo xam ne attanuñ ko ko. Mhm. mais xam nga tey man bu ma ko amee bu nga gaaras bi amee danañ jéem gém te laay kàttan ndax nit ki am nay mbokk aussi ñun dañuy accompagner rek pour mu dem. Mhm. état moo la war a yi mais boo bindoon lettre fii ba suba boo ko yóbboo kenn du ko liir parce que ki ko war a jot du ko jot. léegi da ngay dem di ci mbedd mi di tàllal loxo di yalwaan loolu jeex na si sa bopp maanaam boo ko dee def sax da koy def ci ñaari garage yi nga takkaloon. boo liggéey ñoom bu ñu ko amee nga def ko. mais nekkatuñu koo xamante ni nii dañuy yor pot di yalwaan. maanaam ñu li ñu teg mu metti loolu la ñuy wax pour mu njaay mi gën ko dégg. benn bi xam wax naa la ko sànq nee naa booy ñuy fayloo douze mille teguñu ko fenn. Hmm. comme contrat kii amul. naa ci ñëw après. Hmm. waaw non dama lay kii. fàttali naa ko waaw dama ko fàtte woon waaw. yaa ngi dégg. Hmm. bu newee jàpp na ci ni ne douze mille. vendôme yi ñàkk fayda yi da ngay dem ci garage di rempli plein ñu ñëw fekk la fa jàpp ma dem benn jour station serve laa fekk ñu dajale booy ma ne lu leen jàppe man du ma syndicaliste. waaw mais am na lu ma xam ci transport. ma ne ko yow kii buy sangu pour set la. mais amoo droit di ko jàpp ci bando xam nga bi. ci biir station bi nga taxaw di sol ay booy. mu jël ramasser seen permis toog di leen xaar maa dem ba si moom ma ne ko sëñ bi lii du liggéey te nga lii ngay def nii mu ne ma ne ko xeex boo ci xalaat rek mën na si am delloo ñi seen i pièces mu yéen seen i pièces delloo leen booy di ma tàcc mën leen man wutuma ku ma tàccu maanaam damaa bëgg ngeen am fulla ju toll na Van Ndong kenn waru la ci jàpp vice technique yi bii tamit mun jaay il faut ngeen taxaw ci hmm. parce que oto yi ñu bari yoruñu kër ñu yor këram ah. te liggéeyatuñu oto yaa ngi ñu gaare hmm. teguñu ko fenn te bu dee part non bu dee particulier ak mutation non non mutation bi ñu lay forcé hmm. nit ki xamoo dooleem fu mu toll du yoon ñu koy def katagis bu xoos tuuti nga ni borom doo dem loolu fu ñu ko teg man gis naa particulier boo xam ne dafa xoosu mu de wàcc ci suuf yow xam nga ko man xam naa ko daa wàcc suñu dooral ko kase mu dégg ko dépassement léegi lu tax ñu defal loolu mun ñu ko defal taximaan bi. non dañ ko dañ ko bañ. dama ni nag boo ñu bañee benn ñu bañ la fukk ñun liggéey tax a jóg sàcc tax ñoo jóg si nga oto yu zone yii tamit bari nañ fi trop war nañ cee wax. non loolu oto ko zone mu mel na taxi bu ñu boo sàccee ñu ni taximaan la te du taximaan loolu du yoon. keroog waaj bi ma nee kalandoo bi xaw ma taxi bi dafa yekkal kalandoo dama ni ko du kalandoo du taxi kalandoo la. man ko nax gis nga numéro licence. sa bagage nga fàtte ci oto. oto bi kalandoo la la jox kon xam nga ni kalandoo taxi du yëkkal kalandoo. man mosuma koo gis ah. waaw parce que fan yee am na am na am na taximan boo xam ne dafa yàkkal benn kalandoo. mais client. waaw client bi fàtte. bagage ci profité sax ci li ngay wax nii. waaw di ci gërëm maam Pathé Diop sama garage la nekk. kalpe lañ fàtte ci otoom benn booy jox ko ko client mu xool ko dara newu ci muy carte ak convocation tribunal bi mu ñëwee garage ba di hésité ni ma. man de dañoo jël ba euh, dañoo fàtte kalpe fii président ma ne ko même lu ci mën a ne nañ leen wër numéro bi ba gis ko mun ma noo dama koy bañ woo mu ni xaalis automatiquement bi mu wootee waaj dañ ko cent dix mille ne ma ne ko bu samedee na ñëw kalpe bi ni ñu ko jote woon doon ko jox waaye bi ñëwee xam na ni waa bi mu gisee ki ci for kalpe bi xam na ni kii du sàcc effectivement te loolu bu ko ñëpp doon def looloo tax ñu bëri bu ñu foree kalpe duñ ko delloo dañ koy sànni client yi ñu war xel. aussi ki toog ci ginnaaw ki toog ci kanam mënu ko res lu dul dawal yóbbu ko kalpe boo ko wàccee client da koy gis waxaale ko ci biir dugg jël ko. loolu itam nañ ci bàyyi xel bu baax. jërëjëf. xam naa mbay. ba may ma may ma ma jël euh, sama consultant. def tour ci yow ndax daa am laaj boo xam ne dinaa la ko laaj ca laaj boobu intéressé na gars yi. ah non doo ko fàtte moom laay boole. moom laay boole ba Baye Mbaye Baye Mbaye léegi nag lépp daje na lépp leer na LC leeral na ko ah kon dañuy dellu di santaat yàlla sunu boroom ndax bu ñu amee ku mel ni Mbodj Njaay mii dañuy sant man day dem naa ba aéroport ma seede ko fii fa ma taxaw sama otoy yi maas fa ma fekk jàpp ma mais keroog bi ma ko wooyee moom mii daf ma ne demal ba ca bureau commandant bi nga ne ma diw moo fi nekk hmm. ma dem ba foofa laajte kan moo fi nekk ñu ne ma diw moo fi nekk ma woo ko rapidement da koo woo hmm. mu ne ma toogal salle d'attente bi hmm. ma toog salle d'attente bi ñuy yëkkati samay dañoo waaxu ba ñëw fekk ma fi ma toog jox ma samay këyit kon moom mii mu ngi liggéey liggéey bu am solo covid 19 bi mu ñëwee moom mii di LC Modou njaay liggéey na ci liggéey bu am solo ñëpp di ko félicité ndax loole bu ko neexoon mu xëccal boppam mais defu ko defu ko waaye itam dañuy tàllalaat suñu ministre de transport muy Mansour Faye ndax gars yi jooy jooy yu bari nekkat nekk na fi ba muy waaj a jeexal gisuñu ko mu dem ci benn gaaraas saafonte ak sëfoor sa fa nekk laaj leen seen jàngoro defu ko wala man ba jaan dégguma ko bu ngeen ko déggee yéen ñu toog fii ngeen wax ma ko kon baay mbay xam naa li ñuy dese ci ay minit bareetul léegi naka la ñuy gën a booloo gën a jàppalante ci sunu biir ba ëllëg ñii li ñuy naal duñ ci am defet ndax bu ñu amaatee defet illaa yow mi diine lu ñuy defarati dootul defar hmm. kon kii ñëw ëllëg naka la sëfoor si di def ba an ba ànd ak moom am masorité bu baax hmm. bay am ba am suivi hmm. parce que looy defit ci amul suivi amul njariñ naka la ñuy toggaate loolu ba ba ñëw ëllëg kii moom jàll na ñii ñëw ëllëg ñu mën a ànd ak ñoom jamu am suivi waaw loolu de mbay na na seen xel dal sax laay wax dama la wax ne la ku ñuy yëgul ñëg suñu bopp xam nga changement parking bi ngeen di wax nii man dama ci sax taya la wax changement de parking état moo koy def rapide yi rapide ndund yi bi ñu fi ne moom di ko di ko sensé mais dafa jë indi oto yi ba jox ko nit ñi ñuy daw di fay coow amut ab laa du ñu indi fi oto yu bees yi coow amul ñi mu jox na ko oto yi mais bu baax léegi kan lañ fi sanctionné parce que ma parking la fi mu ne nii kooku ki kooku état moo mën a dimbale population bi comme ni nga ko waxee du ñëpp am carte grise dimbale population bi favoriser ñu dimbale ñu jox ñu ay oto ba ñu daw di ko fay suñuy doom mën nañ ko fay ñu ñu suñu doom mën nañ suñu rakk mën nañ ko loolu jooju wax moom nañ fi mu ne nii wax ji nañ ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ba ñu am beneen état bu baax bu déggoog ñun. suñu ëllëg suñu ëllëg. suñu ëllëg. suñu non suñu suñu ëllëg ñu ngi parce que ñii moon Ndiaye mii Alassane Ndoye góoroo ko ma keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñi ma tudd ñëpp ñoom ñu fi mu ne benn wax lañ yor Trump bi ñëpp a ñëpp ay jooy kon fi mu ne wootee day yomb ñu ko moon Ndiaye xam nga ni fi mu bu yootee day yomb a sonn ku ne yaa ngi jaaxle mënatoo liggéey dara raison leen di yërëm dañuy toog fii ba duñ am sax luñ ndékkee pour quoi parce que waatkat yi ñoo leen rey altat yi ñoo leen rey kon loolu fi mu ne nañ ñaan yàlla ci jàmm fi mu ne yàlla dànk lañ fanaanaal yàlla yàlla dooleel suñuy candidat may leen wér ñu fekkee ko ne seen ginnaaw te yeggal suñu yéene waaye loolu moom loolu mën naa ne faju na ba pare ah. ci kàttan yàlla bi ma ciy teg mooy euh, kii dafa wax bu ma jaaxal danaa ko bàyyi nag après président mais euh, contribution douze mille ci taxi euh, dafa am lu ci ne te jalgati la parce que man ñu ma ko def duñ ko ko def duñ ko def ab moon njaay mi dañu xool ay boy rek seen comportement ñu leen foye wandoom nag c'est normal ñu jàpp ci taxi c'est normal mais ci ay conditions booy liggéey danga war a tàllam ñoo xam ne taxi nga yor mais soo wàccee sax yow kenn yëboo dara guddi gi neel wàcc naa amuñ droit jàppale ci bu ma dem ci station fekk fa ah, taxi ah, di ko jàpp kooku kooku monjaay kooku kooku kooku fan lañ ne ba mais li ko indi yëpp xam nga mooy lan mooy dawalkat yi yaa xëy te ñoo bëri taximan bëriwul fi mu ne xamuñ seen droit duñ ko duñ ko dem ñang duñ ko dem mondial bi duñ la ko def man li ma wax fi ma waxee nëbb moom dama ne na ngeen xam ne lu lu ñu wax fii du ñun réew mi yëpp a ko ñëpp a koy jooy nañ ñu dimbale si wandoom ni nga ko jàppee mooy buy liggéey bu ko amul mais taxi bu wàcce di ñibbi nga amoo droit jàpp ko ji taxi bu taxaw ci soo gaasal ci instant moomu droit fekk bi na ko indi sa pièce bi da war na ba tàkk wàcc na bay rempli di ñibbi noo koy jàppe mais ñu ngi wax ne ko wax désolé man fay moom ñu ay waxam bu kooku moom defaluñu dara bëgguñu xamuñu toppatoowuñu man ne dégg ñu ne woona moon Ndiaye wala woona ak Sandé man dégguma ko wala mu wax ne nangam Sandé ay kaale dégguma ko man te ñii fuñ toll ñu ngi wax liñ bëgg ñu ngi wax liñ bëgg ñu ngi jooy mais répondul ci kenn kon nañ ñaan yàlla mhm. lii dem wan ñu ginnaaw lu ko gën ñëw ci jàmm yàlla tàppe xol yi yeggali yéene yi ba lépp tegu ci yoon ok barke Sëriñ Tuubaa barke Alxuraan ci contribution bi laay commencé nga leeral ko leeral ko askan wi eh, seetaan leeral TV waaw contribution ba nga xamante ne tey eh, taxi bi fu mu taxaw ñu jàpp ko ci Vendôme ci Vendôme mm-hmm. wala fu mu taxaw yëpp ñett client mm-hmm. ñu jàpp ko fayloo ko vingt quatre mille mm-hmm. wala douze mille mm-hmm. loolu fu mu tegee ñaareel bi mm-hmm. ñu ñëw itam ci licence yi ndax licence yi ba tey am na ñu ciy jiixi jaaxa maanaam oto bi nga xam ne am na huit ans ak oto bi nga xam ne zéro kilométrage ca yow ngay jigéen kilifa yi nga xamante ne ñoo ngi ci état bi di waxtaan ak ñoom eh, ñetteel bi mooy mutation bi comme Baye ma gàmmoon ni mu ko waxee naral naa ci ñëw visite technique bi ak mutation bi double mutation bi yooyu tam lëjal na askan bi euh, LC Modou Ndiaye. waaw euh, merci mbay ci question yi ma gàmmoon sax dafa mel ni am na beneen question bu mu jiitaleen de avant mutation yi. mooy mooy contravention bi. ok. Euh, bon mën naa jëkk ci boobu ah. ah. nga baal ma nag d'ailleurs wax dëgg yàlla raison yi ñu bëri ñu ngi réagir ah. mm-hmm. am na ku ñuy wax Moussa Ndiaye moo jiite suñu gox sunu ité ci ndàngal ma. Mm-hmm. mooy président groupe boobu ñuy def liggéey bu am solo foofu ci ndàngal ma mi ngi am waaye message ak ku ñu wax Xaadim Ndiaye euh, nekk euh, chauffeuru minicar nekk xombal mhm. ñu ngi leen di nuyu di rafetlu émission bi mhm. ci wàllu intervention yi euh, man dama ci liggéey ak directeur de la sécurité publique loo xam ne bariwul bariwul waaw xam naa ah yaa posé yu bari de ah, da nga koy résumé waaw mhm. dañu liggéey ak directeur de la sécurité publique ñu koy jaajëfal bu baax ki fi nekk nii ah. Ibrahima Diop macha allah. wax dëgg yàlla ndax nit su defee da nga naan def na. dina tax mu gën a góor góor su defute nit buñ ko waxutul duñ ko tudd fii. mais daf ko bañ ba yëkkatee barème bi nga xam ne tout ce qui est contravention ci senegal mhm. boo war a fay. Mhm. ci police mi ngi fa. Mhm. te barème boobu moo walaabal ci gendarmerie. yépp trésor la jëm. amu ci bu am douze mille francs amu ci paragraphe douze mille amu ci. bi ci gën a kawe. six mille francs bi ci gën a kawe am na sax ba mille cinq cent mm-hmm. waaw yaa ngi dégg mm-hmm. bépp responsable yàgg naa ko réunion ak ñoom que ni képp ku mu intéressé ñëwal ñu jox la ci copie nga jox ko sa waa kër ak ña nga nekkal mm-hmm. mu yaatu moom demoon na ba ne nañ ko ko tafal ci commissariat yi joxe na ord boobu ba pare aussi daf may wax ne képp koo xam ne ci chauffeur yi waxuma taximaan yi de kuñ ci loo lu ëpp ci contravention simple laa wax de lu fay six mille dama koy wax ne ko yenn heures yi bëgguma la koy woo. Mm-hmm. mais dafay wax ne bu dee lu ñu war a mën a liggéey bi moo ko laaj na nga woote même porte quelle heure. Mm-hmm. kilifa la gu ubbeeku. Mm-hmm. da ngay essayer benn commissaire sax mu jafe nga woo ko moom jot ko wala mu rappelé la. kon kooku bu taxawee noonu nañ ko wax. amu ci nañ ko bañ. ku ko def c' est de corrompu quatre ou six trois mille francs amut. tegul fenn. ñi la koy wax genn wàll gi dañu nekk ci bureau contravention moo xam fu a doon. la indil douze mille mbaa nga fay six dem.

boo fayee ba pare nag doo ma ko wax dama naa la jërul nga ma koy wax parce que da ngay tàngal sama xol. man lépp laa mën a maslaa lu dul jël nit ki. xaalisam ci loo xam ne jaaduwul beneen bi mbay. mooy lu jëm ci wàllu lu jëm ci euh, wàllu euh, Vendôme. yéen ñi yàgg a taxi quatre-vingt-quinze ku mu fekk ngay taxi. xam nga ne Vendôme dafa amoon ñaari tarif moo ci amoon. Mm-hmm. tarif un ak tarif deux. Mm-hmm. boo déparé taal nga sa vendum defe naa suñ juumut mu ngi mujj ci déparé xaw ma deux cent vingt ou deux cent quatre vingt fa la mujjee boobu taxi ñi nit ñi ñemewuñu ko woon taxi nit ñi dañ koo ñemee léegi parce que bi ñu demee après dévaluation bi fi compteur jógee la nit ñu bëri songu taxi di ko jël loolu bokk na ci li indi clientèle lu taxi mu gën a bëri tey mais taxi bu njëkk ñi koy jël dañu xam safoori taxi safoori taxi xam leen mm-hmm. taxi baruloon ci dëkk bi safoori taxi bari ñu woon mm-hmm. léegi nag nit ñi ñemee nañ ko parce que compteur amatul mm-hmm. d'ailleurs ñi jël taxi genn wàll fi doon xamuñu taxi. taxi bu fekkee da ngay liggéey bëccëg. boo taalee tarif 1. di nga gis ne client bi toog ci kanam dina gis ne compteur bi mi nga wàcc 20 francs 40 francs wala 60 francs. lañ mujj def naa ba 120. Mm-hmm. pour mu àgg nga fay. Mm-hmm. bu guddee boo defee tarif 1 dafay lampe tànk dafay tàkk lampe vert nga def tarif 2 à de minuit mu tànk lampe bu rouge. ñu ne la borom rombee Cambérène 2 tarif 2 ngay war a dawee parce que zone interurbaine lay dem. Mm-hmm. yaa ngi dégg la boobu kenn amul problème boobu léegi nag dañoo dem ba. Mm-hmm. taxi comme amul contour moo tax ñu bari waxuma la sax mais vendome amatuñ ko. Mm-hmm. comme amatuñu wàndoom mm-hmm. ñu ci bëri di ci profito mais xam nga ne taxe bi li taxoon nga war ko mën a jàpp ci kon ci wàndoom mooy mm-hmm. nga yéen ci biir gis contour bi gisoo wàndoom bi ci kaw di tàkk fekk loolu amul waroo ko jàpp LC mais compteur bi amatu fii LC xam naa waxtu ba jeex na da nga koy tàggatoo rek xam naa ne ma def tour de table gaa yi tàggatoo ndax 4 mm-hmm. euh, minutes moo des di sant euh, waa jataay bi di leen jaajëfal euh, di rafetlu émission bi di wax ne quand même wax dëgg yàlla am na solo nuñ koy waxee waxatee li xaj ci li duuf ci nabi xajut ci ni waaye wax dëgg yàlla émission bi su ma ñëwutoon te ñuy teew fi rek mbay mm-hmm. am nga émission bu am solo mm-hmm. boo xam ne Sénégal yëpp dañ ko déggee di la ci ñaanal ndam mm-hmm. yàlla dafa la ci barke Ibrahima Touré tamit moom la fi gën a miin suñu xarit bu yàgg yàgg xam naa buñ fi ñëwaatee ak Dame Dieng xaj na ñu leen mën a madame Touré eh, nga jot lu ñu suñu yóbbante ci yéen di la wax ne émission bi yàlla na ci yàlla def ay ndam yu bare bari en tout cas di nuyu cadre unitaire de syndicat de transport Euh, taxi du Sénégal groupe sécurité routière ak monde du transport yëpp daal maa ngi leen nuyu. jërëjëf Baye ma Gamou lan ngay tàggatoo. xanaa di nuyu di gërëm waa jàmmalaay yi nga xam ne mooy di seen dimbalante bi ak mouvement transport doole transport ak euh, koo xam carte grise ak permis yëpp. ñu leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziar di ñaanal jàmm. di dellu rek di gërëm sama wasila bi mu Seydi Almaañ Maane Ndiaye mu leen ma ko ci bépp xalit euh, kilifa diine. di ñaan jàmm ci réewu Sénégal di ñaan transport am ndam. di naan transport xol yëpp ànd nekk benn. ba lépp luñ song ñu daan ko yàlla mën na ko yàlla nañ ko defal. jërëjëf euh, suñu papa. naan na café ba ne ba ne ba ba ba màndi moom. Mm. papa looy tàggatoo. waaw xanaa di santante rek di wax euh, maa ngi nuyu waa Nooru Daara ni yëpp jëwriñu di Isaaxa Mbuub di leen di leen wax nañ ñuy déglu tey jokk ak euh, rajo bi ak télé bi. Mm. ndax ñoom lu lu avancé lu defar transport rek ci lañ ne. surtout ñun taximaan yi. di nuyu naa waa Pointe Almadies nga xam ne falaan ne nuyu ñafa ne ñëpp di la wax ne nañ gën a góorlu ci sellal daal liggéey bi nañ ko gën nañ ci gën a góorgóorlu sellal liggéey bi di nuyu Birame Touré Dame Dieng madame Touré employé na ci rajo bi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp kaw ba ci suuf yàlla na def fi jàmm def fi tawfeex te yàlla leeral yëpp liñ fiy jooy ne yàlla na ko yàlla saafara yàlla na saafara ci nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a baaxee te ñu yàgg fi ñun ñëpp nag jiite xele yi ba cent yàlla defal ñu ko yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def barke alxuraan ak karim jërëjëf kontaan naa bu baax a baax di jaajëfal LC Modou Ndiaye ndax bi ma ko waxee ne ko dama am émission dimanche dafa ma ne se confirmé tontom mooy loolu mooy LC Modou Ndiaye bàyyi ma gàmm mii tey laa ko woo tey bi ma koy woo mi di jot na ne ko dama laa bett nag mais dama am émission leeral TV bi jataayu transport ak mbay ba Badiane mu ne ma c'est confirmé yow démb laa la woo wax la ko nga ne ma sa confirmé kon sant yàlla dañuy sant itam daam jee di sant itam Pa Omar Gaye moo nekk ci régie bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax muy xale bu am jom xale bu nungoo liggéey xale bu gëm boppam ak maam Oumy di jaajëfal madame ture ah, di jaajëfal Birahim ndax nag lii lépp moom la lépp moom la di nuyu sama baay ba ca Touba baay bàcc bajaat mi ngi ñuy seetaan ak Moodu Kan ak waa këram sama doom maam jaara di nuyu sama waa euh, quartier ndax itam dañuy dégg aha waaw ndax euh, waxtu wi fi muy sama waa quartier muy grand jeune mu ngi teg caayanam la ma wax di seetaan émission bi ak astukan sama dëkkandoo maa ngi leen di nuyu di nuyu waa axlu transport yépp di jaajëfal 14 régions yëpp di leen wax na leen nag lii nga xam ne moom la ñu sumb yàlla nañ ci yàlla may ndam waaw liñ ci bëgg yàlla nañ ko yàlla defal mut njaay tànk yi nga xam ne yaa ngi ko teg di ko dox muy tànk yoo xam ne tànk yu dëgër la yàlla bu la kenn fakastal ndax man fooy dem réunion danga may woo ma toog ci sa wet bañ na ko ba sax yenn saa yi danga may jox dara ne ma def ko doonte munuma ko sax danga ma naan bay am li yaa ma ci doy kon loolu dama tàllal nañ la loxo tàllal bàyyi ma gàmmoo loxo tàllal monde bi yëpp loxo di nuyu waa diaspora bi nag ndax ñoom itam ci wàll wi lañ bokk. Mm-hmm. kon jaajëf jërë ngeen jëf ba beneen yoon merci beaucoup. bonjour monsieur l'agent. yaa ngi dawal yor sa téléphone. maa ngi jégalu de dama doon topp kaa rek. da nga doon topp kaa dañ lay attesté pour usage du téléphone au volant. monsieur l'agent day xaw a compliqué ci man de dem ñëwaat te instant bi ñu ngi may xaar. loolu jaratu ko yombale nañ leen yëf yi bépp contrevenant bu def infraction leen ji tali bi am nga possibilité fay fiñ la jàppee suffit nga dem ci site bi ñuy naan. amende point sn mën nga fay sur place. xanaa loolu lu bees la. jox ma sa numéro ma woon la. 85 téléphone. da dugg ci message bi pour mën a fay. waaw def naa règlement bi. voilà fay nga sa permis. merci beaucoup monsieur l'agent maa ngi jégalu nag. merci madame.

kii sëgg na sigg patron ñaata nga yeb si gannaaw. kat euh, la quoi samay booyee koñ la dama gis ñuy dox ma ne xaar ma déposé leen quoi. ok dama lay defal attestation. non chef chef chef bu ma attesté tey la samedi xam nga tey bu ma occupé sama permis fa ma bàyyi ba lundi te fu ma dëkk dafa sori géej waaye laa dëkk. xaaral ba lundi aajuwu ko di nga toog sa oto mën nga fay sa amende forfaitaire benn site bu ñuy wax amende point sn. Ah, ah loolu loolu cour na de chef. jox ma sa numéro téléphone. 06 22. xoolal sa message ndax ñëwul. waaw chef jot naa jot naa benn message bi. mën nga fay nga dem. voilà ñëw na. ay moteur surnom je vous remercie. merci waa chef. désolé encore ah. merci bonsoir. Le surnombre met en danger votre vie et celle des usagers de la route. En cas d'amende, vous pouvez payer en ligne sur www.amende.sn. Bonjour monsieur. Bonjour père. nga jël sens interdit solo casque de sécurité. waaye fii rek laa jëm fii rek ma ne jarul casque da ngay attesté pour non port de casque de sécurité. père attesté. père bu ma naree dem commissariat central war a rang yooyu noonu. jàpp ci rek fii rek laa jëm. jaratul dem commissariat pour fay infraction yi ngeen def ci tali. am ah bon mën ngeen fayee ci amende point moo xool sa numéro. 55 50. xoolal sa téléphone. mais waaye ñëw na de. père efficace nga de mën naa ko fayee fii. effectivement mën nga ko fayee. vérifier fay naa de. jërëjëf. père yaa efficace. Le port du casque est obligatoire pour la protection du conducteur. En cas d'amende, vous pouvez payer en ligne sur www.amende.sn. asalaamaaleykum. maaleykum est-ce que xam nga dañu arrêté la. non non takkoo sa ceinture de sécurité. dama koo fàtte. da koo fàtte ma xool sa permis de conduire s'il vous plaît. mais dañu lay bindal attestation. waa chef dimbali ma boo ma attesté fii mu war a dem police di ko fay dama yàgg ci yoon wi lool loolu toonal damaa nekk benn urgence. urgence jaratul dem police di fay fi nga taxaw nii mën ngaa fay sa contravention de dem police. mën nga ko fay ci aman point sn. jox ma sa numéro téléphone. 043. xoolal sa téléphone. <laughs> ñëw na de. <laughs> ok lañ si jublu je vous remercie. merci beaucoup. <laughs> amande point sn. Eh, lii am na solo de. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour la protection du conducteur. En cas d'amende,